ndaysaan daama ngay sotte ko Talla Ndiaye mbaartin la àndal mbaartin la àndal mu ngay maagante école de lutte manga te la jóge école de lutte manga de Dame Sène mu ngay maagante Bébé Julde nge école de lutte Cheikh Mbaba Bébé Julde mu nga naalam 16e da caa bëgg taxaw Talla Ndiaye cay gàllaaj lamb lu ne ngay gis. ah Babacar ba war xoolal sama arbitre bi. eh Macha ngi Macha ngi xool arbitre yi Macha ngi ree rek arbitre Macha. Babacar xoolal lale. eh taxaw na ca sees ba. Babacar ba sees eh, mu sotti ko Talla. cey lamb. ñu koy sotti waaw lii la ko Serigne Ba wax. cey lamb. lamba ngi Talla Ndiaye. lamba ngi nii Babacar. eh mbërum yaraax maa ngi. ah Babacar. wala da na pëng fi mu ne nii. waxi mag day dem xaar ngi nii. lu waay doon jaay day lamba. Talla barki Serigne Saliou Mbacke Babacar. ñaar Talla booy jaay te kër ba mu timis lalil. Eh, booy jaay te kër ba jant bi so. Talla lalil bu na loo jar. te xam ne timis na. bàyyi ba suba. ba jant fenk. ba fajar. waaye ñii moom mënaguñoo lalil. ñii jant ba solo ñuy bëri. waaw waaw Babacar. jant ba solo taala. am na mbër yi nga daan xaar ci làmb jant. waaw ndaa waaw am na ñoom dañ daan sooxal jant. Babacar loolu lan la woon. waaw mbiru mystique la dañ leen koy wax fekk jant baa ngi feeñ doo ko daan waaye bis bu jant bi suuxee yaa moom làmb ji bu ko defee ngay guddeel làmb ji. waaw ñu ngay talante ay xale léeg Senghor la dañ koo suub daam seen maa nga dool a jógee arbitre baa ngi wax ak daam seen ba la koy wax waaw yoon wi. école école de lutte Manga 2. bu dépassé sa heure Babacar. dañ lay dagg xaalis. amul sax ma dëmt. ah waaw. ñaar lañ lay dagg Babacar. 10 000 francs. ñaari junni benn ñaar ñet ñeent. da ngay fay ba bëgg a dee. Ah, boo defee cinquante minutes nag. ah yaa xam ne bu keroogee yaa koy fii wéetoo. ah kon de dañ ne ma dagg. bépp jullit école seex Cheikh Mbaba. Cheikh Mbaba xam nga koom. Babacar waaw xam naa Cheikh Mbaba. champion champion la woon. Baba nekkoon nekk Fass. waaw ñoom ñoom ci moom. ma bëri nag Mouhamed Ndaye fii ci Iba Mar Diop ci kaso bi Tyson daan ko. ay Babacar loolu loolu neexoon na Babacar. Eh, Mouhamed Ndaw Tyson. boobu maa ngi koy fàttaliku Babacar. l'homme de génération pour faale. ndaanaanu ndaanaan yi. eh dafa révolutionné lamb. kappoo ndaanaan yi. kenn du kooku ci personnalité. kooku moom mooy kapp lamb ji. eh Tyson borom kenn du moom. borom Pikine. di di sa kase di yokk. ci ba ci Tyson laa moom kase laa ko gisee. ak Modou Lo xanaa. bilaay walaay Babacar. waaye mbër mu ne ak sa empreinte ngay marqué. waaw loolu dëgg la Babacar. waaye Yékini ca fayda ca fulla ga. ca bëgg boppam. ca personnalité ga. fonk la muy def. ca champion ba. ana Tapha Gueye ak man bëre. kenn du ko dab. Eh, le tigre de Fass. kenn du ko dab. taale na mbër nu ne taala ñaay. wallaay kenn du ko dab. du mën a ñàkk. ab na lu ne. waa seen bés xamuñu mbër mi man lañ koy laaj. <laughs> Alifa xamul mbër mi seen dafa foo jógee. déggal xalifa yow. xalifa foo jógee. déggal xalifa. xalifa foo jógee. xalifa nga ne lan. xalifa loo waaye seen bés xamuñu mbër yi bi. waaw waaw yërëm ko yërëm ko. ah yërëm naa neex na. waaw mu ngay woote. bagage ya na. eh Femi Sania. waa kër Dame Sène waaw waaw way lamb na jax ay ca Talla Ndiaye ñaari mbër yaa ngoogu taxaw Talla Ndiaye ginnaaw ba ñu noppante ci gàllaaj Talla Ndiaye ee Bébé Diouldé féete gauche Dame Sène dajjil beneen paquet nekk droite Dama ngongu wala bébé ngongu taala dappal ma bébé taala bébé ngongu ñëw waaw ci bébé daam seen taala daama ngongu doomi parcelle ee eh, taala ñaay ñu leen di seet taala paasu wisit Babacar Babacar wala dem na gëng waxi mag yow doom dañ taali Talla Ndiaye waaw Babacar fu ne nii lañ doon xaar lépp Talla Bakar day war mbaam Talla Ndiaye waaye eh, Babacar waay Babacar eh Talla nuyu naa ñëpp Talla Ndiaye Babacar sant nañ ñëpp Babacar ñaanal naa ñëpp jàmm Talla Ndiaye Babacar ana Lamine Talla Ndiaye Lamine nga doon toog. ah Lamine moom mi nga toog taxat ci donguru góob sa doom nday di xaar ku daal sama rek sama doomu nday dem dem ba léegi mi ngi lay laaj. sama seex non moom bu ma gisul laaj ma. wallaay dem ba léegi mi ngi laaj. maa koy wétli moom may wétli Lamine Seck. daa tongu dem. eh loolu lañ dëgg ànd bu yàgg dëgg. tongu dem. Habib Ba ngay wax ak ñoom day waaj a suuf la may nuyu ñëpp di siyaar ñëpp rawatina sama ga neex na Tijaan yaak murid ñu taxawal suñ bamba bis tudde ko daayira Tidiane ba murid yaa ko def Serigne Moustapha Sy lañ ko tudde moom Serigne Abdou Aziz Al Amine mu yónnee fa ndaw daana loolu rafet na ci réew mi Sénégal ñoo ko bokk. mais dama laa mere Babacar. lu tax. li tax ma mere Babacar indi indi loo ma soos. arbitre soufflé na. Bébé Diouldé à gauche. Dame Sène à droite. ñu ngay lewaatoo. Eh, Bébé Diouldé Dame Sène. Amdi Moustapha sa mbër maa ngi Dame Sène Cheikh bu Bébé Diouldé sa mbar maa ngi Bébé Diouldé laa ilaha illallah Bébé Diouldé ak Dame Sène Bébé xaw naa gëj am ndam ca sat bi Dame Sène ndar la mujj daane sisa daaw ñu ngay lewaatoo Dame fausse garde pied droit Bébé Diouldé garde normal pied gauche xalaat naa xeex waaye Dame a bëree Bébé Diouldé nag am na bëre waaye mu ko topp rek moom Bébé daam di doxeek moom wet eh daam ak Bébé ay Talla Ndiaye ñaari mbir ngi lamb bu tolloo fii ñëpp tekk di xool Talla nuyu naa ñëpp Talla Ndiaye sama waa dëkk waa ak yaay duma leen fàtte waa Ngokunu waa Pays kër samb kër Maas kër Cekura lépp ci Ngokunu wala lépp ci ak yaay xeex na moom wala. Bébé Diouldé nga jóge kër Diouldé ak Mbomboy am na kër Ngoon Sarr am na Mbomboy Réfane eh am na kër Ngoon Diagne ak Grand Dakar fa la waree daan seen parcelle 1 ba 26 école il mangal 2 nee na ma xam naa Mérina Sarr waaw ca Alto Ndangal ma la kon nga xam ne mbiri fure la ñuy daama ngoongu boo xoolee. bébé ngi jom ci kawam muy ñuy doxe wet di ñëw si ñun bébé jul daa wane ginnaaw léegi arbitre atte na day wax ak ñun toppal ma loolu taala toppal ma ko lu mu leen di wax bëre leen jóg fii wa da a war a bëree arbitre soufflé waat na arbitre soufflé na waa Merina Sarr dinañ taam dama xam na leen eh daw na jëli mu daj ak moom waaw bébé jul da koy ñam ca suuf wala Julia looy def na wuur gis nga eh daan na ko na ko bu doole doole Talla Ndiaye doole doole Talla Ndiaye oh doole dafa daw di xar mu kii ko mu dellu fa mu jóge woon Talla Ndiaye loolu lay fa nga jóge woon Talla dellu fa nga jóge gaay Talla Ndiaye waaw maa ngi lay fay Babacar waa ji li ngeen bëri noo ko daan billahi kii maa ko moom wër na yàlla jàmbaar la nag jàmbaar la bu ko neexoon di daw mais dawul jàmbaar la da ko ñaanal naa amaatee combat suñu bool bool dafa garaat Dakar yàlla na ko yàlla may ndam. bi ni mu gaawee doole ci feeñ la. billahi combat bi conseil suñu baax bëri suñu rek nee na ma xaar ko doy ñëw tëru ko mu ñëw ma tëru ko tëru mu kaw ma faa ko mu jëm daane ko foo jëm loolu. billahi fu ma la